sama doom ji ubbi na beneen dossier. Uh-huh. léegi. Euh, yële. Euh, la woon. Euh, waaw <laughs> léegi. léegi. laaj message ma ko ma bopp. lii comme guerre. laaj message message ma ko ma wax ko si biir est-ce que du ma delloo repos médical ba ci kanam. fii dal ba delloo si. ak lu saagee ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw na def ci bopp bi ne local yi dina ko organiser. day am de. Mahmoud Saleh naan fin fin fin deux mille vingt et un léegi. léegi tësu bi tësu tey bi ak lu mu garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw local yi Macky da ko war a dëgg. parce que li tax mu garaaw mooy kii dafa ne. Euh, moom sàkkaraam gi sàkkaraam gi euh, waaw ni ko yàlla bindee ci ci néew maanaam ci ndawaay waaw loolu loolu loolu dafa dafa daal daa nopp maanaam loolu kii kii maanaam nam nam nam mel euh, ba mu wooyee sama doom ñi ne ko mënu ma la ko expliquer daal il faut nga ñëw ñu taxaw ci ruq wi ma wan la. da ko wan non non sama doom ji dafa daw waaye boole koog Mouhamed Diaw mi ko enregistré. ñu dugg ci ruq. mu mu mu mu wan ko ko. kon maa tudd da ngay daw. ay ah, yii mën na ko jigéen mais wan na ko Mouhamed Diaw moom wan na ko. Mouhamed Diaw gis na ko. waaw ah, waaw nee na ko jàkk. léegi mu ne affaire bi Mouhamed Diaw mii ñu enregistré tas bi fii waaw enregistré na ko. affaire natt na ko. léegi lu mu wax mu ni. ni ni mel daal moom moom yooyu yu tuut tànk yi sax. ah xëy na dafa amul. déedéet yu tuut tànk yi sax maanaam ci kaw gàttal duñ toll noonu. waaw loolu moom da nga koy xool rek xam ne da doon sikk lool waaye jërëjëf. am am am na mbindee fa daal nu ko bindee daal. non non non lool lool lool lool lool. gàtt ah, moom moom li mu bëgg. Eh. Euh, euh, mooy ndimbal. ah waaw lii nag lii nag xaw ma opération moom sax na ci yu mel noonu opération la laaj xaw ma lu mu laaj daal waaye daal. Euh, nanguwul jël soxna. Ah, ah, waaw waaw c'est normal euh, nanguwul sax daanaka bëggante it. Ah, voilà gone gone yi génn ci mbedd mi yooyu di ko di di ko di ko xarab ak naan naan naan moom daal moo moo sam moo euh, daa daa daa daa petit. du ko du ko waaw yooyu daal yooyu daal yooyu daal waaw fitna googu fitna kii daal la gone gi di dund. fi mu ne nii di ko perturbé lool. waaw léegi sumeer. sumeer kaay nga jox ñu ko rek ndax yi ci nee man mënu ko wax. avant tout maa ngi leen di nuyu yéen waa D-Média di leen nuyu yéen ñëpp ak ak yéen ñi nekk tës ñoom Amath ñoom Mandoulaye ak yéen Mohamed waaw man dama am benn benn jafe-jafe bu ma sonal boo xamante ni mën naa ne daal depuis ba ma xam xàmmee laa ko gis ci man yàlla daal daf mën na too mayoon aw raw tuuti daal tuuti tuuti tuuti ba jaaxal ma trop trop trop waaw léegi nag man dem naa si ay fajkati olof peut être naa ne dem naa si ñeenti nit mais ku ma ci demit ama ah la ma kaa yi ko fii dégg tout le temps ma ñëw daal nu ma mën a dimbalee te ala tax soit ngeen defal ma opération wala chirurgie wala koo xamante ni man na maa faj dëgg-dëgg mu dimbale ma ci daal te ala tax waaw loolu daal moo nekkoon samay tànk xool nu ngeen yow yow loolu 嗯。 pour dire vrai moom man xaw ma ne ma ko judduwaale parce que mën naa ne daal bi ma xàmmee ko daal laa ko gis ci man kon peut être mën naa ne mooy partie bi nga xamante moom màggul ci man franchement daal. mais li ma wan nii bëriwul li ma wan nii ay deux centimètres la ay trois centimètres. noonu la toll noonu ma la ko waxee noonu la toll deux centimètres ou trois je ne నోళ్ళు టోళ్ళు నునుమలకువా నునుమలకువా నోనుల టోళ్ళు నునుల టోళ్ళు exactement abay jaaxal na ma trop trop trop man naa a fu may nekk nii ni ba sama xel nekk ci lu ma ma am nangu fi ne nii ma nekk ak jigéen ay gis nii ay doxaan ay nekkul sama affaire parce que fi dugg naan da fi doxaan jigéen parce que daloon na ma may jigéen ñi comme jamono ju tas yi nii da ngay génn ak ñoom ñuy bëgg a egg ak yow fenn fii man xam naa du ma si xarit naa fi jéem dem di séq ak ñoom dara teg sa bopp gàcca man ba ma fi defee depuis ko dafa mujj di dem naan sama xarit yi ndeke kii du góor lii moo taxoon ma koy yow sama muy daw des trucs dama xamante daal na jëma muñ ko toog ba nek fi di génn ak ay jigéen fi ma lay waxe ni génnuma ak jigéen taluma ko sax parce que jamono ni mu demé da ngay génn ak ñom ñuy bëgg ég ak yow fenn fi da yow xam nga né bo ég ak ñom fenn fi yow gàcce nga fay fek kon nak mieux vo nga nga jema muñ tok ok légui yow légui yow bi nga démé di faju ji lan lañ lay wax manam ñi da ngay dem ñu naan la ay raba la ko def ñi da ngay dem ñu naan ay hémorroïde ay xawma ma ndox siti lu nek dal ku nek jàmb ay affaire ay garab jox la nga naan la même chose dem na ci quatre mara yu mara yu génn fi tale ma len di gis ñuy wax wax loolu ku ci nekk dem naa si ñoom la ma yore ko si ma jox leen ko ñu lekkal ma ko ba nii fajuñu ma. amul kenn koo xamante ne xam na ko sa famille muy sa yaay wala sa papa. kenn xamu ko ci man parce que loolu tamit xam nga mënoo nekk at âge bi nga am dem ci kenn naan da ko koy wax. loolu a a dama sama papa taxaw wala sama yaay naan ko léegi léegi ma dal te nga xam ne boo ko xam nga ne mënuñu laa faj yoruñu lu lay faje da leen gën a teg ay coono mieux vaut na dem ci bonne volonté yi ñi nga xamante ni yàlla may na leen xéewal ñu la mën mën a dimbalee. bizarrement sa yaay mi nga dëkkal muy jigéen yow instant nii magum jëmm nga nga war a toll si takk jabar est-ce que parfois du la pousser si affaire yooyu noonu ngay rasu après moom. non si dal la ko parfois ñu naa la ñu naa la yow damal takk jabar affaire yooyu sa moroom takk nañ wala nii man fi nga nii sama ñeenti moroom ma doon àndal ñoom trois ñëpp am na jabar booy seet man man ak sama benn xarit rek ñoo ci des nangu ñu takk te ko dafa de moy wala affaire yooyu man mom sûrement man li mom moo ay waxu jabar ak duma wax sax waxtaane fi ngay gis dañuy wax ni gëna leen ay jotta gut ak ay nii damay investir ay dama ay lay ngay wax parce que xam nga li ci nekk yow paré wu ma sax bu ñëwoon ni dama jabar kay ñu may la ko gratuit damay bañ parce que bu ma ko dama damay sama sutura mieux vaut nak ma ñëw fi yéen ñi nga xamanteni paré amna lu leen yalla dimbalé ngeen dimbalé ma ci ma mana fajo waaw ay jabar ak yoy mom neewul sax sama programme parce que man mom ya xaru ne nak pour dire vrai man na jigen dara non non parce que man lu ma lu ma lu ma gis li nii loo xamante ne ni sama baaraam bu sànqaleñ bi sax moo ko gën a rëy ñetti yoon bon je ne pense pas que ne maanaam euh, jigéen ñi maanaam dinañ dinañ soxla loolu waaye yow tey jii nii euh, maanaam lan nga bëgg ñu yokkal la ko wala ñu opérer la wala lan. man instant bi tous les moyens sont bons. opéré yoku nuñ ko mëna def man bam guddu rek baana opéré xëcëk dagak man na guddu rek et puis bu ma yaxal dara ci sama doon goor wala fa parce que man mom goor la quoi franchement mais la limi tuti tuti tuti tuti dang ko limi gatt gatt dang ko yeg dire vrai mom dama koy yeg mom mais nak dafa ndaw parce que nit lo koy yeg yeg yeg te mënu bougé fi ak fi xam nga lool mënu lo ji kën dara dañu xande deug affaire bi ko na sama bi ci question ay deuguer nak ay dama koy yeg parce que ay deux centimètres trois loolu xam nga ne mënul jigéen lu bëri li moo nekkoon dama daal vraiment sonal na ma lool may nekk nii ba sama xel nekk sax sama àdduna day bëgg a franchement damay ma jigéen dama laak ah, ay affaire noonu parce que xam naa li ci fekk parfois jigéen da lay proposé boppam sax mais da lay ba génn ci ñaata yoon la loolu arrivé comme jigéen boo xam bon mën naa ne dal na ma deux kenn ki dañ doon génn mu sonal ma di ma proposé mooy ki ma doon expliqué naan dafa dem sama xarit naan ba xam góor laa des trucs ma mujj xamaa rek parce que damaa meeting bañ ma dem jaayu ne damay seq moom dara mais à daf ma bàyyi parce que kii góor kii ndeke lii moom dafa bëgg ñu nekk seq yooyu man ma bañ que naa li ma fekkaat comme cas bi dund naa ko ko dalaat mu insisté si dem kaw dem suuf moom dafa mujj ma bàyyi ma na séq ak man ma bañ léegi mu bàyyi ma léegi nag depuis loolu man dama toog nii quoi dama ni a dimbalee parce que dégg naa fi kaay yu bëri parce que man tëstuma raw chaque jour dama koy déglu mais dégg naa kaay à maintes reprises ma ne woon naa ñëw fii nu ngeen mën a ma si dimbalee yàlla tax waaw d'accord sa kàddu gu mujj la la. waaw sama kàddu gu mujj mooy tamit di leen remercier parce que gis nañ seen liggéey vraiment yéen ngi def liggéey bu nice xam nga yéen a ngi dimbali néew gi doole yi ku jàppale ko si man daal maa leen ko lancé yow Mouhamed Ahmed man Abdoulaye Thioub Ndoye lii laa yaakaar ngeen dimbali que jaaxle naa sonn naa trop trop trop daal te yàlla tax vraiment lii moo daal maa leen sant di leen gërëm cay waay yal na yàlla doole sutura rek. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin te yàlla rek tax ci sutura ngir yàlla ak jëmmi Seydina mm. Mohamed alayhi salaam. dañu nekk ñoo xam ne dañoo bari nekk ci société bi te mënuñu ko jàmbat fu ne. même seen propre famille. mënuñu leen ko xamal xam nga nit ñi tamit da ngay mel ni mantulaay mel ni benn sëb ci ci benn kër chaque jour boo génnee gis sama yow mënu takk jabar sa morom yëpp am nan jabar di ko wax di ko wax fekk moom mi ngi dem ak suturaam te bëggul ko ko xaawil mm-hmm. mu toog ak suturaam rek toog ak suturaam mm-hmm. Mm-hmm. donc genre yi boo leen mayee moyen ñu mën a dundaat ubbiwaat seen bagg ci société bi laa bëgg wax yàlla da koy fay wallahi tuyaaba boo xam xamoo fu mu mën a pour l'instant suñu yaay ji Aminta Sall neen dina ko urologue professeur. mais bëgg nañ aussi am na ñoo xam ni yàlla may na leen ci loo xam ne dañ koy faj. Mhm. ci faj bu immédiat. Mhm. keroog Cheikh am na ku ma ci doon proposé Cheikh Anta bu dee yaa may dégg Cheikh Anta Gaye technicien fii waa ci ay plante. Mhm. nee benn gambien la ay plante la yoo xam ne da koy defar alaaji ba mu nekk genre euh, looy massé. da koy def massage nee na boo koy massé tout le temps en quelques jours da ngay gis muy génn di am di am di am am volume. ah loolu baax na de. Ah. Ah, ah, def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk nañ ñëw ñu boole la ak waa kër docteur bu nag ay mbirum ay mbirum ay affaire olof yooyu moom ah vraiment ñun de suñu xam-xam màccu ci de. Eh? duñ la boole kenn de. Cheikh Anta du fi boole kenn ak kenn de. Eh? déedéet déedéet déedéet bu dee ay affaire waa kër docteur daal. Eh? sa boo ñëwee ñu boole la ak euh, madame Dramé daal di wax waaye nag bu dee ay mbirum këru olof yooyu moom. ah du doon tës bi de xanaa ah non non bu du doon tës bi de xanaa mu dem jéem a làmb ci yeneen émission a tës moom ah. déedéet déedéet déedéet déedéet c'est formel ah moom dama ah. moom moom sawaay moom jàpp rek te yàlla rek sax waaw moom mooy loolu yaa gën a xam hmm. ne gars nga xamante ni nii gars yi sawaay fii dikk léegi ne waa tës ñoo boole woon ak diw mu jox ma benn dose am ko naanee la dee dëgg la daal bu dee waa kër docteur ñoom ñoom bind leen lettre madame Dramé ngi nii principal daan déggoon la lii ak lii seen social bi lii ak lii mais bu dee ay mbirum olof. loolu mm. doon tës bi de. xanaa ñu jéem a laal beneen émission moom. nekk nii moom. bi moom lu ci. dëgg moom sërif bi la yi di song moom. Euh, nañ mm. bàyyi noonu. rek Cheikh Anta daal bu mu fi boolee kenn ak kenn. waaw mm. ah, waaw bu dee waa kër docteur comme sa yaay ji nga xam ne moo jël ñii boobu ba léegi di leen xarafal ah gis nga boobu ba léegi xam nga déggoo ba tey kenn ku la woo ne la lii ak lii. kër docteur. ñuy def pajub cosaan nag je n'ai rien contre eux waaye daal waaw rajo bi daal du fi jël benn risque moom ah enfin émission bi moom di di di di def ko jéggal rek euh, ba beneen yoon. ah ah, ah. Mm-hmm. yàlla baax na de waa kër docteur ah, moom. en tout cas bu dee waa kër docteur de je pense que. ah waaw ah, waaw yàlla baax na. yàlla moom la. yàlla baax na de lool waaye jëlee. lool lool lool lool. Bakary Traoré nee na mbirum hmm? xaalis bu feeñ ca diwaanu Saly. ah xëy na leen na kon ak suñu kii waaye ci suuf lañ ko baax na baax na Bakary garaawul baax na baax na Bakary Traoré benn suñ benn frère bu dëkk fële Géejawaay am naa xaalis bi ñu doon annonce léegi nii trois millions xaw quatre millions cinq cent yi réer ca booru Saly nee na foofu am na fa benn xaalis boo xam ne tam dafa feeñ eh, waaye sa numéro duma ma ko joxe <laughs> moo ko joxe mukk mukk mukk mukk mukk hmm? ah waaw minable bon bay bëgg a voleur yow koy bàyyi noonu rek mbirum xaalis moom sévère bàyyi noonu rek bàyyi noonu mu tëmb waaw ñoom ndaw daal bu dee mbir mi jaral na leen ko moom sawaay hmm. danañu dem ci kanamu yoon ñoom ñu sax laa njëkk laa mu gi sax ñoom laa gën a sikkal ndax yow mënoo réer la ab xaalis ba pare gaayen sawaay mel ni ku ragal waa ji ñu jàpp ay doomu adama di leen saaga euh, aca voilà alaaji sumeer alaaji Sumeer Jóob waaw waaw ci loo ne. Jóobu demoon tool. korma mi. ah. seen couple daal dama koo yéene sama xol. Hmm? ah. da ngay entraînement wala li may xalaat la. waaw. parce ale boo gis am na retour. <laughs> <laughs> gis nga <laughs> yaa di mi problème ci anglais yi. gis ngeen yéen ñaar. <laughs> seen problème. yéen ñaar xam nga fan. loolu muy daaw. <laughs> xam de xam nga fan xam nga lu may mujj def. dama leen fi mujj jëlee. wala rang xar ah. rang muy tourné ci ginnaaw. xool dañuy di ah. boole fële ci ginnaaw ñoom ñaar rang muy tourné. am lycée ah waaw am lycée. nga xam ne man balaa ma day obligé jege chimère door a wax. Ah, léegi. waaw suñu international bi nag ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp. di Babou ah. Diop mm-hmm. l'international. Mm-hmm. di ko jaale waa Tëngéej. di ko jaalee aussi la Tanière. équipe mm-hmm. waaw ah, vraiment di ko jaale ministre de sports Matar Ba. Ah. président de la République ak euh, ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ak ñi dëkk Tëngéej. waaw vraiment jaale ko waa Sénégal ñi nekk ci biir réew mi ak waa bitim réew di ko jaale tamit euh, waa Lens. waaw di ko jaale waa Sedan di ko jaale équipe yi nga xam ni fa la doon nekk ci Angleterre jaar fa ñëpp ñu leen koy jaale. ñaan yàlla it yàlla xare ko ci àjjuma yu gën a kawe jaale ko tamit euh, desk sport yëpp jaale ko tam le doyen Abdoulaye jaw ñaan yàlla rek yàlla xare ko ci àjjuma yu gën a kawe am mbégte mbégte bu raw gam ñu bëggal keroog suñu diggante ak France yàlla na ko yàlla fay mbégte million yooyu mu ko jagleel sénégalais. bis boobu bis boobu ku ne ci réew mi. keroog kontaan nga ci xale bi. yàlla nag. Uh-huh. ay mbiram moom ñu ngi nii lu ko neex def. Uh-huh. amul dara loo xam ni defal nañ ko ko fi ba mu war ñu fee mën a bàyyi. Uh-huh. ba ma gisee démb ñu ne soixante-dix-huit la judd ma ne ndeysaan xool ko rek maa moom day ñoo maase. defu ma fi dara dara dara lu war a mën a tax rek. wallaay ndeysaan. du yàlla. du njàng. du xam-xam du mbaax du social. boo xam ne borom bi war na ma fee mën a ba di ko yóbbu loolu laa njëkk xalaat démb. waaw moo tax yàlla moom ay mbiram kenn mënu ci dara. na ko yàlla xare ci àjjana yu a ko yàlla suturaal fa mu jëm. yàlla bu ko cat jiitu fa mu jëm. réew mi de li ko ñi ko xam seedeel loolu rek la ko ñu nekk ci biti xamuñu ko won ci nit ko xamanteni ni dañ nan ko cim xamuñu ko won ci lëfër lëfër rek manam def lo xam nit ñi dañ koy waaw lool yëpp waaw di jale it Abba jaata mi di def suñu trafic bi ñom ñaar ñoo ndo jaraaf. ndeysaan Abba. waaw moom moog Abba football ndo nañ jaraaf. waaw dem rek ndeysaan mi ma wax koy jale nak wa di ko aussi l' international El Hadj Ousseynou Diouf. ak mhm. Kalidou Fadiga. ndeysaan génération 2002. voilà génération boobu. vraiment ñëpp ñu ngi yi li ñuy bëri yëpp. Mhm. daf ci am noo xam ne ñooy gën a xaritoo. Mhm. Ah, faral faral di bokk néeg. waaw entraînement bi ñooy dend. waaw moom nag tippoom Henri Camara la woon. ndeysaan ndeysaan keroog suñu match ba ak. Euh, ndeysaan France. Uruguay. wala Uruguay ñuy def suñu 3-3 yi mené trois 0 dem deuxième mi-temps gars yi ñoo égaliser keroog tiit nañu. ndeysaan jour boobu it noonu la def moom it dugal na ndeysaan euh, na ko yàlla xare ci aju ni gën a kaay. amiin yaa rabbal aalamiin ndawam ndawam fa mu jëm. waaw lay ndeysaan. lii waay cay waay cay waay jëf cay cay àddina. ci naan de. waaw mbir mi daal mi ngi nii rek. walaay ndeysaan nga Diego Armando Maradona mi ñu fi tàggee barki démb ndeysaan ak euh, moom mii ñu fi tàggee. c'est. tàgg nañ fi Pape Diouf début d'année. Mm-hmm. mille vingt moo war a jeex. dëgg bi de. vingt ko ngemb waaye ko ngemb daal am na doole. ah. deux mille des de tey la la. des de. des na un mois de. xanaa décembre nga xam ne mooy daanaka nee nañ mois bi dàq ci mois xanaa nag dina ànd ak euh, neexaay bi bi bi ñuy bi ñuy euh, wan sax buddi tunnel leer leer bi ñu nar a deux mille vingt et un. xaw a am jom tuuti. waaw waaw. en tout daal waa këram tamit day waa këram tamit day ah seede nañ ci moom ay seede yu rafet uhhuh, uhhuh. a nañ ci moom ay seede yu rafet a rafet. ay seede yu loolu moom lu dana dal xel la. maanaam moom nit moom buñ naan dafa baax dañ naan ndax mbokk yaa ko te mbokk yu njëkk. waaw vraiment te moom day ay mbokkam day seedeel nañ ko lu baax a baax a baax. senegal gépp seddal ko aussi yar. Sénégal gépp discipline bu exemplaire bu wane. ñëpp seddal nañ ko lool. ah ndeysaan gën a kawe yàlla na réccu jaar jaaram ci kaw suuf mm, yàlla na ko réccu yoro caam restaurant central université maa ngi leen di nuyu bu baax ak Diouf ak Pape Gueye foofu ci kuddu ak ñoom Omar Ndiaye maa ngi siyaar ñëpp ndeysaan di leen jaale nag l'international ndeysaan Mbaye Jaxate maa ngi la koy jaale bu wér a wér yow tamit vraiment ndeysaan Yacine Faye ba Ahmed Aydara Kalidou Ba Sikaab vraiment Moussa Aad mais Moussa maa ngi ziar waaye borom Agir waaw noonu la de la constance rek de noonu la de noonu la de ah waaw yàlla fi am sutura waaye ndeysaan xale bi de. caay waay jële Momar Cissé. góor am lay siyaar caay waay jële. Laay Cissé goote. lay siyaar ak Souleymane Thiam. Adja Maguette Xuma. maa ngi lay siyaar nuyu ma Abdourahmane Gueye baax. ndeysaan. ndeysaan caay waay jële. caay waay kenn xamul lii lan la wàcc. Seydina Moussa alayhi salaam. barki Dembo Ndiaye laa lay wax nii riir ma am ca. riir ma am ca ca ca ca ca ca ca Argentine mm. <sighs> daal yàlla daal yàlla daal yàlla daal ay mbiram mu ngi noonu. cey subhaanahu wa taala. Euh, Mantulaay. ndeysaan Abba nee na ku daan déglu tës la depuis France. Hmm? ndeysaan ndeysaan. nee na Pape boobu daan déglu tës depuis France fidèle auditeur. inna ko yàlla yow. koy jaale bu wér. jaale ay mbokkam. min min wallaahi. deem gi day laal na Sénégalais yëpp. kéemtaan ci am naqar. kéemtaan la kéemtaan la. Hmm? Euh, yàlla xaare na ma daal. Hmm. dafay indiwaat nag. Euh, waaye bi yoon sax Maroc la de ah la wala Algérie deuxième test bi. ah Maroc la Maroc Kaar la. waaw damay ubbi de damay ubbi de. damay ubbi mais bi yoon balaa may ubbi. il faut moom mu dem seeti sama yaa Aminta Sall ba pare bañ wax ko lii mooy solution ba am lu ñu ko dégtal ba mu def ko ba ma gis ne waxuma ma gis ko bët de Mouhamed laa yebalaat mu xoolal ma ba mu gis ne évolution am na ci foofu. su amee foofu nag. ñi nga xam jot nañ ma jàmbat am na ñu ma jot a jàmbat ba pare. ma tegaat ci ñeneen appel jàmbat lañ ne ñoom it ne lii am na ñu ma ko jàmbat wallahi alazim ñoom it dañoo kii wallahi alazim petit wallahi alazim am na ñu ma ko jàmbat bu ma su ma jàmbat yi dafa yàgg sax ndeysaan te aw ma ci woon solution moo tax dama bëgg ubbi dossier bu dee nag kii nag am na solution ma Mohamed xool xam ni dossier bi noo koy tuddee mantu boo ko ubbee ni ma koy tuddee maa ko xam. ndimbal boo xoolee sama tësee ni ma koy bindee <laughs> maa sam papa rek <laughs> mën a xam ni ma koy bindee. dama bëgg xam dossier bi ba doo ko xam de <laughs> sama dossier bi kenn du fa dugg léegi na su ñëwee bu ko defee ma def appel fii ci rajo bi ñi am problème yooyu yëpp ñëw incha allah. Mhm. Mhm. man tuddee yow nag 2020 bi moom da nga ciy yàlla dégg nga. si si si jaamu yàlla. de defar macha allah employé pompe funèbre yi doon fotow ci ci ci cercueil Maradona bi jégalu nañu mais licencié nañu leen da ngay doon star ba keroog ngay faatu. yàlla def loolu Binta Seck Binta Seck ngi toll ci ñaari at. dëkk nag euh, yëmbala ah, daa réer ñaari at. kii moom xanaa da doon raam génn kër gi. deux ans. Ah! la yaay ji tudd. papaam Jibril Mbay képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 526 73 28 Matar Sène euh, nee na dafa for benn sakado à dos Souleymane Sañ la wala Souleymane Sagna bu mu am xaalis de képp koo xam ne daal gis na ko na woote ci 77 517 37 09 Mamadou Thierno Diallo nee na daa réer rek carte koo gis na na nga woote ci 70 478. 37 84 sponsor yaa ngi noonu de Jumia ak lan. sa très vitale ak Jolof Chicken. waaw kay léegi su envoyé naa la message waaye xale bu 16 ans lycéen bi réer géejawaay. géejawaay. Mhm, lycéen bu réer démb. <laughs> est-ce que juum. Abdoul Aziz Sow Dabakh démb ko envoyé. jàngiwul démb. est-ce que juum. ab lycéen la noo jàngiwul démb dafa réer. est-ce que juumoo est-ce que géejawaay la. géejawaay la lii si Seydina Limaamu Laay lay jàngee. wantu eh, eh, lay delloo jàmm. ay dëgg yi. seize ans mm-hmm, moom la. Mm-hmm. classe seconde lycée Seydina Limamou Laye ma nga jóge woon seen kër nag euh, dimanche matin ba tey kenn gisu ko. Mm-hmm. ku ko gis nag moom ay dëgg yi mii na nga woote ci 77 542 68 79 man de nit ñi réer fi ñu ne laa xamul lan la. seize ans. Ah! léegi Chimère ñii nee nañu dañoo am ay problème ca diwaanu Maroc nga wax. Mhm. yaayu Mouhamed. seen bagages yi dañ koo nangu. Mhm. taal yéen nii sànni yéen nii. <clears throat> bagages yi la ay millions yi millions. waaw yóbbu oto ya Maroc. Chimère. Euh, ay transporteur lañ. rek jox jox ñu ñu dégg. sëñ bi la moo nekkoon soxla waaw ñun ay sénégalais lañ ñoo xam ne ñoo ngi liggéey ci entre transport ak commerce entre Dakar ak Casablanca nekk ay chauffeur di yóbbu ay bagages di indi ay bagages di jëlee ay bagages Sénégal di ko yóbbu Casablanca di jëlee ay bagages Casablanca di ko indi Sénégal. yàlla dafa def nag bi Covid bi ñëwee ak léegi ñun dañoo amoon suñu oto yoo xam ne dañoo jugee woon Dakar doo dem Casa bloqué ci frontière Maroc bi mënuñoo dugg Maroc. am oto yoo xam ne dañoo blo jugee Casa bloqué biir Maroc munuñoo génn ñëw Sénégal. loolu c'était mois de mars. bi ñu di ñaanee état bi ba mois de juillet le vingt cinq juillet la oto yi nga xam ne ñoo nekkoon biir Maroc doon dem Dakar ci lañ leen débloqué wu la état bi lijjanti bañ débloqué wu pour ñëw Dakar bi loolu amee nag suñu yeneen oto yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biti waroon nekk destination bi nekkoon yi Casablanca yi Rabat yi Agadir bi loolu amee oto yooyu foofu lañ nekk ñoom mënaguñoo dugg te ñun amuñu possibilité pour mën a delloo oto yooyu dakaar léegi fan yi passé bi nga xamee ne amoon na problème mu sahrawi yi ak marocain yi ba sahrawi yi bloqué frontière Maroc bi si lañ toog une semaine ba saaraayu bi bi marocain yi dégagé saaraayu yi foofu bombardé leen une semaine après rek lañ jot information que ne ñun suñu oto yi ñu bàyyi woon foofu ak suñu bagages yi marocain yi ñu ngi ko dajji dañuy dajj oto bi récupérer bagages yi yii ñu taal ko yii ñu sànni ko récupérer suñu propre oto yoo xam ne ñun ñoo ko moom dugal ko biir Maroc sans aviser ñu waaw ñun dañoo jékki-jékki rek suñu yenn ñaari nit yu fa nekkoon ñooñu woon nañu marocain yaa ngi def nangam ak nangam ñun bagage yooyu li ci ëpp

millions la yeboon am na oto yoo xam ne ay lignes yeboon ay valeur de millions ay yoo xam ne cinq millions lépp ndax na bagage moom lépp yàqu moom waa léegi actuellement nii comme oto yi moom mi ngi biir Maroc yéen est-ce ngeen dem ba xam di ngeen mën a jotaat seen oto yi ak bagage yi mbala la bu dee oto yi xëy na dañ ne ku nga képp koo xam ne moo yor say kayit yor nga say kayit oto normal jusqu'à nouvel ordre après nouvel ordre di nga mën a ñëw def procédure pour mën a récupérer say oto mais nouvel ordre jusqu'à quand préciser wuñu benn date d'accord léegi grand yéen eh, fi ngeen gaare woon seen oto yi est-ce que foofu kon ci zone marocain yi la wala dañ leen a wax léegi bu leen gaare fii ngeen gaare ko fa moo waral loolu mbala la déedéet loolu pendant des années loolu daan nañ fa gaare suñuy oto du am benn problème foofu du zone Maroc loolu zone boobu moom lañ tuddee xandaxaar mooy entre ni amoon na ay gardien yu fay nekk ñun bu ñu gaaree suñu oto ba pare tëj ko dañuy jël oto bi dénk ko gardien bi di ko fay voilà mais nag bi problème bi amee gardien parce li tax ngeen di gaare foofu hmm. li tax ngeen di gaare foofu maanaam da ngeen di xaar benn autorisation bu bu leen dugal biir Maroc ou bien li tax ñuy gaare foofu bu ñu ñëwee formalité yi ñuy def yi nga xam ne moom la ñuy def pour mën a dugg wala nga ñëw di négocier ak douane wala nga ñëw douane taxé la lu seer ci ngay génnewaat oto bi nga teg ko foofu dem ngay négocier waat loolu wala boo yorulee xaalis pour nga woote say ak yu demee noonu pour ñu envoyer la xaalis pour nga mën a duggaat biir mën a fay douane dem loolu moo tax ñuy gaare foofu suñu oto te du ñun rek ñoo fay gaare suñu oto da nga fay gis oto marocain danga fay gis oto mauritanien yàgg nañ fa gaare te amuñu benn problème te foofu bokkul ci Maroc. ok Nations Unies sax moo fay nekk. Nations Unies moo fay nekk. Mhm. d' accord te yéen ba léegi xamoo leen lan moo waral loolu noonu. li ko joxuñu leen benn explication ñu benn explication te aviser wuñ ñu en même temps kenn avisé ñu wax ñu ne. jour bi ñëw leen jël si seen bagage wala dañoo jékki-jékki rek ñu suñu ay collègues yi nekk foofu ñu ne ñu ngi ramassé bagage ñu ngi yàq bagage ñu ngi dajji oto yi am na ay quelques vidéos yoo xam ne yor nañ ko ak ay photo yoo xam ne preuve la ni ñuy yëkkatee oto yi ak ni ñuy dajjee bagage ak ni ñuy taalee suñu marchandise marchandise yi yëpp yàqu na marchandise rek moo ëpp oto yi oto bu nekk la nga yeb mu moo valeur am mën na jënd mën na jënd ñaari yoon oto bi wala ñetti yoon waaw d'accord léegi bu ñu jógee Maroc ñëwaat fii Sénégal bon yéen ay bagage yu jàmbur ngeen di yàpp maanaam nit ñi ñoom ñooy transporter fay leen pour ngeen yóbbu leen bagage wala ngeen indi leen bagage hmm. léegi actuellement ni dossier problème bi fan la toll fii nii. waa fii nii bon loolu bi ñu ko yëgalee ñenn ci suñuy client am na ñoo xam ne dañ naan ah doy na waar rek waa baax na xaaral dinaa la woowaat ñenn ñi moom dangay toog jékki-jékki sa kër ñun di la convocation gendarmerie hmm. waaw ngay jékki-jékki ñu ne lii tribunal la jóge convoqué nañ la loolu lañ ci te loolu bon boo ci demee mënoo mënoo bon ñoo tooñ parce que mënoo am dëgg mais ñun tamit dañ ñoo tooñ moo tax loolu mën a sànku man mi di wax ak yow xaw ma ñaata yoon laa jot convocation sama kër ok bi nga jotee convocation boobaak léegi dem nga ci gendarmerie mbala police mbala tribunal am na yoo xam ne dem naa ci gendarmerie am na yoo xam ne suma convocation dafa tardé am na yoo xam ne jotuma dem parce que man bi ma yëgee problème bi fii laa jógee Sénégal pour ma am accès foofu foog ma jaar police Rosso bu doon dem foofu pour dem sauver ji alal ci laa dem police Sénégal ñu defal ma laissez-passer boo xam ne Nouakchott lay yem bi ma demee Nouakchott tamit damaa dem ambassade Sénégal bu nekk Nouakchott pour ñu defal ma beneen laissez-passer pour ma mën a dem foofu bi ma àggee ambassade Sénégal bi ñu may defaral laissez-passer ak parce que papier boo bëgg foofu da am consulaire bi ñu ma koy defal bon de parce que amoon naa ñu ma fa jiitu ñu ne ma xaar ñu defal la parce que lii c'est urgent bi ñu may jox samay papier ci lañ ma informé ne que yow mi sa oto jël nañ ko say bagage dajj nañ ko saccagé nañ ko taal nañ ñi oto bi lonk nañ ko dugal ko biir Maroc d'accord léegi yow bi nga demee fu yow bi ñu la bi ñu la euh, convocation bi nga njëkk a uy ji. Mhm. Euh, lan lañ lan nga fa waxante ak euh, gendarmerie wala police bi la woon ak client bi. ah loolu bi ñu wooyee dama ko dama ko ne bon bon là mënuma si dara parce que frontière yi ñoo tëj affaire yooyu damay ñaan yàlla bu dee am na patience bu mu mën a def parce ne suma mbébét naa liggéey lu mel nii te musuma ci am benn tolof tolof dama koy li ma ko yoral actuellement mënuma ko fay parce que ñun depuis mois de mars ngi nii neuf mois ay de fi ay det yoo xam ne xaw ma sax na laa mujj gi dama jaay suma benn oto bu nekk fii pour mën a fay sumay det te taxul loolu mat. d' accord léegi nag lan ngeen ni lan ngeen bëgg wala lan ngeen wax état du Sénégal par rapport ak ñaari dëkk yi wala ñetti dëkk moom moo ci impliqué wu sax. waaw léegi li ñuy ñaan am na loo xam ne état moo ko mën a lijjanti ñun mënuñu ko lijjanti di ñaan loo xam ne liggéeyu ministre affaires étrangères la ak relation bi nga xam ne. Maroc am na ko ak Sénégal li nga xam ne moo li ñuy séntu ci état marocain mooy suñuy oto ñu jox ko ñu récupérer ko sans ñuy ànd benn coono parce que am na fi toll nii ñoo xam ne tey jii boo ne woon ñëwul Maroc li jëndi seen papier sax pour mënuñu ko mënu amuñu sax xaalis billet d'avion bu ñu mënee dem Maroc te yoonu suuf bi amuñu possibilité pour mën fa jaar parce que mën na ñëw ba frontière mais duñ ñu autorisé pour ñu dugg te loolu liggéey bi ñun ay dizaine d'années ñoo ngi ñoo ngi koy def depuis ñii ay 2010 ñu ngi koy def ñii 2009 ñu ngi koy def comprendre léegi li ñuy xaar ci état Sénégal mooy mu dimbali ñu ci num ñu mën a dimbalee ci bagage yi xam ne ñàkk yooyu moom sànku na bagage moom sànku na mais suñu oto moom mu ngi biir Maroc li ministre affaires bu Sénégal mu jéem ak ministre affaires étrangères bu marocain yi ñu yombalal ñu ñu récupérer suñuy oto te Sénégal lu mu ñu mën a dimbalee ci bagage u yi nga xam ne sànku na parce que moomuñu ko lu ko may ay ñun ñëpp dañuy tëddi kaso suñuy njaboot gën di sonn te ñun ay ndaw lañ ñoo xam ne demuñ ci gaal demuñ feneen defuñu lu bon sàccuñu fenn ñu liggéey lañ xam liggéey rek lañ xam jur ñu suñ te ñun dañuy contribuer lu mu oto bu ci gën a tuuti bu demee Maroc bu ñëwaatee Sénégal day fay doon balaa moo dugg te xaalis bu weex tàll ngay fay door dugg waaw oto yi dañuy yeb bagage Maroc ba lu gum néew néew oto ñëwee lu mu bon dinañ fay cinq cent et quelque oto bu ci a tuuti dina fay cinq cent et quelque jusqu'à un million loo xam ne mënoo toog benn fan boo xam ne lu mat quatre oto ñëwul wala trois oto ñëwul jóge Maroc te ñun depuis mois de mars ba léegi ñun liggéeyuñu dara maanaam dangay am sa am na ñoo xam ne sax seen problème kër sax seen sëy sax da ciy tas ndax am na jigéen ñoo xam ne mënuñoo muñ ñun ñu ngi sant yàlla bu baax parce xëy na am na ñenn ci suñuy soxna ñoo xam ne mën nañoo muñ mais li ñuy dund metti na mois mu ngi ni ñun liggéeyuñu d'accord grand yéen vous êtes euh, de personnes

sa biir kër sa famille toog di indi indi histoire voilà ñii dañ lay partager ci net bi nan la yéen ko sàcc ak yéen ko def nangam ak te alors que loolu lépp du suñu vote yàlla mi ñu seen xam na kenn xamul nag mais yàlla suñu borom xam na ñun nag ñu ngi ñaan état sénégal lii mu intervenir si sinon ñun dinañ nekk ci ay tolof tolof yu metti te ay borom njaboot lañ ay jeune lañ nekk defuñu dara am na ñu koo xam ne ci suñu dañ naan ñun tey ñoo dem ci gaal gi sa waay rawal su ma ne ko man duma dem duñ dem buñ dem buñ daw buñ daay parce que nit da ngay diñ sàccoo woon fenoo woon dañ doon liggéey di dimbali suñu njaboot ñu fenuñu duñ ay arnaqueur duñu dara waaw nañ toog fii interpeller état Sénégal lu mu mën ci ñun mu defal ñu ko te suñu oto yi nga xam ne moo des moo gën a néew ci liñ ci li ñu yàqule ñu fexe ñu mën ko am ñu mën cee am accès récupérer waat ko ci nu mu gën a gaawee lii daal moo nekkoon suñuy suñu cri boo xam ne moom lañ doon def di ñaan nag état Sénégal ak bépp bon volonté bu dégg suñu kàddu te mu mën ci dara mu defal ñu ko te yàlla tax parce que maintenant on a la besoin oui merci beaucoup jigéen ñi fi nekk yëpp ci ko dugg di jëm ci àddina gënta sekk deux ans matar ah tamit moom lii lan la ah dégg rek nguur gu leen war taxaw rek compliqué na de waaye lu mu compliqué compliqué des yi dañ ko ko de bu sarakoñ. sarakoñ wala sorokoñ. sorokoñ ndam luuma luuma bu jama gaajo. jama gaajo. mbir kilaan. kër mbukki. ngeer baabu. wàkk nguuna. kebe waalo. ah xam ca commune bu ngent xaay. ca ngent xaay. wàkk nguuna moom wax naa ngeer baabu. wàq nguuna moom. wàq nguuna moom biir Saalum ak wàq nguuna ah papa wàq nguuna. wàq nguuna biir Saalum la wàq nguuna. mbir kilaan. waaw tun tun ak Jamal. Jamal Kër Mbukki Jamal la. Kër Mbukki ah Jamal. voilà te Jamal boobu. Kër Mbukki foofu foofu nag foofu nag ay ay ay ay. ak jama gaajo ay nitu yàlla. jamaal googu. jamaal waaw demoon na fa de. ay jaamukatu yàlla yi biir. bi ñu ñëw aussi jaax nañ ci. demoon na fa de xalif xalifatul fayd Cheikh Mahi Cheikh euh, Ibrahima Niass. ndeysaan Cheikh bi macha allah. ndaand luuma bu. jama gaajo kon xoole woon na baykat yi. Hmm? ma ne kon xoole woon na baykat yi. Hmm. kon commencé waat na mu ne wër gi. Hmm. lii de bu dul wër xaw ma lu muy luru. tournée bi day. jugee Ndakaaru dem ba Saalum. jaamal yenn député de bu ñu defoon li leen war a tourné yëpp sax du ko jar du ko jar. wallaahi kilifa yi dinañ xam li xew ci réew mi. waaw dama seetaan benn extrait wu honorable député Sira Ndiaye. Mhm. muy wax ak ministre bi xam nga. ñun ay député wu Macky lañ wala ñun ay député wu Ablaye Wade ak député wu peuple. déggoo ñu naan les représentants du peuple. dégg nga loolu déggoo ñu ne penku ndawi réew mi. see eh, seex yéen ay ndaw ngeen woo xam ne réew mi leen yónni mhm. député loolu dañ ci war di bàyyi xel mhm. eh, député Sira Ndiaye wax ministre bi ne ko Stade Caroline Faye laay Cissé laa gis mu mu publier ko benn booy bu nekk Géejawaay goote mhm. ne ko yéen day waa Mbour lu mu bon bon am ngeen député député Sira Ndiaye mu ne Stade Caroline Faye monsieur le ministre des sports war ngeen cee jàppale askanu mbuur bu baax. Hmm. parce que mooy seul tund woo xam ne instant bi dafa am aéroport international di ay am péage am lii am lii am lii am lii ak lii ak lii tund wu mel noonu stade ba dañ caa war jublu te loolooy dëgg. Hmm. mbuur dafa jekk sax di recevoir ay match internationaux.

am ñu bokk ci pouvoir ba ñu fa dëkk ak ay député yoo xam ne ñu nga fa ni keroog samedi papa Ludovic Rosner Ludovic Rosner men dafa def dafa def analyse boo xam ne daf ma marqué bokk na ci li ma gën a marqué ci weekend bi dafa ne ci ñaari député yi nga xam ne dañu songoo ci assemblée keroog du ma ñëw ci tur yi hmm. dafa ne loolu ci assemblée presque àdduna bépp am ay xëqante dana ci député dafa am fépp mais ñun Sénégal suñuy particularité li nga xam ne moo ñu différencier ak yeneen assemblée yi mooy député yi askan bi moo leen di fal mais ñoom seen leader ka leen ka leen ka leen tax a falu kooku la fàtte askan bi ak seen i problème moo mm-hmm. xamuñ su ñu loolu différence ak yeneen assemblée ci àdduna bi gis nga fi kenn koo xam ni taxaw na assemblée di ñaxtu jafe-jafe askan bi lu dul ne leader mo am problème ñu jaare ko ci di di di di di defante yu sew mais bo xolé à la base problème mu leader lay doon problème bakken seen bakkenu leader. du du du la ñuy sàmm. du depuis day doon même nos conseils municipaux là. Mmh. kan mo leen def ay conseils municipaux ku leen fal do askan bañ dem ba dugg ci bir bir bir conseil municipal bi. ñu leen falé sax lu maire ba wax. Mmh. ñu ne gongo même bu dee luy rey koñ ba la sax ak gox ba. ay benn nit ñaari nit ngay gis ñu ne fa. te ñeneen ñi boo waxee dara sax ñeneen ñi ñoo lay ciipatu. Mhm. ndax bu secours yi génnee ngeen mën cee am yaa ngi nekk ci merci wu maire bi. Mhm. député député député xam nga xam nga Mantoulaye ni ñuy tànnee député ak conseillers municipaux yi il faut que affaire bi di demee noonu. <laughs> gars yi dañ naan la ñun ay député Macky lañ déggoo ma de barki Dembo Ndiaye lañ ne Macky reçoit les députés. de Benno Bokk Yaakaar. mouvance bi. pour boo leen ñëwee ñu wax leen ne leen lii ak lii ak lii ak lii. Mhm. te fàtte ne député yooyu askan wi ñoo leen war di recevoir askan wi nga xam ne ñoom ñoo leen fa war di recevoir wala ñoom ñuy dem ci askan wa di xooli seen ak mitit déedéet waajee leen di recevoir. boo dee lan nga gis ci luwaay. Mhm. su baaxee ak su baaxul yëpp. da nga xoolal waa daal na ni waaw rek mu jàll ni lettre ca poste. day jàll day jàll rek. xeex. ci dara. jàll rek yàlla doole jàmm a à part maam Diarra Fam ak euh, beneen jeune PDS bi nu mu tudd. kan Toussaint man gisuma fa keneen kuy xaw a fi. nii de dañoo ne ci opposition. waaw loolu la dañoo ne ci opposition opposition ku fa nekkati loolu lay wax. waaw non dañoo ne ci opposition. fi la. ci Sénégal dama ne waaw d' accord. nekk ci opposition ngóor la ci Sénégal. d' accord man kay. yombul de. waaw mais ñoom bi ñu nekkee bi ñu nekkee ci nguur gi. temps nekkee ci nguur gi. yenn ci seen i député dañ doon wax nañ ñeen ay député Ablaye Wade lañ suñu Ablaye Wade ne gauche dañu naan gauche bu ne ñu droite ñu ne droite mm-hmm. ku fal ne sa bopp déggoo ma de mm-hmm. xaaral ba ñuy wàcc bu ñu wàccee danga danga naan du ñoom ñoo ñu ñii ñooy ñëw mantulaay xaritoo ak yow mm-hmm. gis nga ñi lay saaga nii tey nii nii say xarit la ñu woon bi Ablaye Wade nekk ay pouvoir ñooñu ñoo la doon wax naa la Ahmed soit toujours du côté du peuple ligne éditoriale bi fi nga ko teg fala dugg na fi gën a fi. dégg ko ah mais benn jour nee naa leen nañ leen toog ba yàlla def El maali Malick Gakou nekk président de la république xam nga benn jour pourtant maa ngi joxe bi exemple la maye man kan laa bokkal kon ci ñi nga xam ne dañ naa ay président présidentiable lañ. dañoo bëgg réew mi xam nga kenn laa ci bokkal kon mooy Malick Gakou. su yàlla dogalee tey mu falo ba nekk président de la république. man su ma demulee fekki ko ci lu ko neex sama ligne éditoriale bi dafa war a changer. même mom bu la waxul dara bu la waxul dara ñi dëkk ak yow géej way ñoo lay ñëk wax ne la amet gaayen bi xalamal ko yena boko kon ni ngay defé baxul té ñoom mëss nañu jàpp suñu doom ji vraiment jambar la sha allah ko mais bo dof lo ba sa xarit falu ñi ko jégué ñoo lay ñëk wax ne la mbeur ni ngay defé ni baxul mhm. wa apéri di la ni ñoo la daan tagg. waa kër Ablaye Wade yi def la tey xarit nii fu ne ñu téléphoné la fa naan la conférence de presse léegi ñoo la daan xas de góoma de léegi nag yow nag yow yaay am sa fulaak fayde wu ne man benn lii suma liggéey la. ñaar nit mënuma di def gauche ak droite booy léeg-léeg lii point final. xoolal boo tëddee nelaw mais gis nga boo leen toppee. dañ lay def comme dañ lay def dañ lay def comme dañ lay def comme comme xob. wala jaaykatu éponse. ngelaw li politiciens boo leen doppee nii. Uh-huh. nii rek lañ lay def nii. yow nag yow militant bi yow yaay dema dema dem bu mujj gi da ngay mujj réer dootoo amati crédibilité bu tayee boo publier saaga diw bu ëllëgee sa patron jubóog moom nga ñëw tagg diw gars yi génnee sa ñaari public foo jëm. Hmm? fan nga jëm. yàqu fa yàlla doo xam foo jëm. te ñii nag ñoom ñii ñoom liñ bëgg moom mënul ne. jogoy mii ak waa këram pour réew mi yëpp ànd ak moom yàlla amu ko mënoo ko am booy boo nga tudd yàlla fa yàllaawu rang ñuy tëj rang bu suba yàlla yàlla dolli jàmm ci réew mi amiin yàlla rang ñuy tëj yàlla na yàlla jàppale. yàlla na yàlla aar. yàlla na yàlla taxaw. feebar yàlla yàlla ñu jiitu yàlla na yàlla xare àjjana. ñu caabi féete ginnaaw yàlla na fa yàlla samay bagage wàññeeku. amiin alaaji Sénéer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi moo ji moom noonu ci ginnaaw alaaji Seer Sarr dikk na waaw kay waay euh, ajaratu mami Samba ngi nii toog ngi nii toog de moom day lii sama taaw bu jigéen baa ngi nii màkk mi eh, mënut papa sama xarit day anniversaire Ousmane Ndiaye Belgique chéri Fat Bintou joyeux anniversaire sama xarit bu baax ci man da ngay junni mm-hmm. kay ana kan la dendal sëtu ko ki borom maamu barrière or ba ca Médine bandi Achim bandi Xorey monsieur le maire de la ville de Guédiawaye ngi nii toog. Ah. di leen jox ko ndig daje. rajo incha allah.